à vouloir exprimer notre voix dans les urnes et nous avions pris rendez-vous loolu la Macky Sall tey ne loolu du am donc encore une fois je le dis et je le répète ñii di seen kër yi naan Macky Sall nii wala Macky Sall nee ñii di toog seen bureau yi naan Macky Sall nii wala Macky Sall nee ñii teg ci oto yi naan Macky Sall nii wala Macky Sall nee ñii toog ci marché yi naan Macky Sall nii wala Macky Sall suñu jugul taxaw lii Macky Sall suba lundi bii dina voté assemblée loi boo xamante ni dañuy modifier. te la ñu bind moom ak parti boobu nga xam ni ci complice lañ mooy dañ ne dañuy reporter six mois li ñu waxul mooy suba suba dina am député bu jug taxaw ne day def amendement mooy lan ëllëgu ñu def ko six mois nañ ko yóbbu deux ans te boobaa suñ vote béy wéy na mbuus donc na sénégali yi xam ne li ñuy xeex tu ñun la buñ dee jël suñu risque di ko teg ci tali bii ñu ñuy dóor di ñu pour ñun tey jii ay junni doomu sénégalais ñoo nekk ci kaso bi ñaata nit lañ jël seen ci biir bàmmeel dañoo bëgg réew mi donc buñ dee jug di xeex nañu bàyyi toog ci kër yi wala ci marché yi wala ci car rapide yi wala bureau yi naan Sénégal moom sénégalais yi nii politiciens yi nii Macky Sall li mu bëgg ci réew mi ji nga bis mu sottee dana fi toog ba xolam sedd jël nguur gi jox ko ki nga xam ni moom la bëgg kooku continuer ñuy dundaat ci même système bi donc 2024 bi nañu xam ni mooy occasion bi kenn warul rate mooy suba. loi bii ñuy voté assemblée ne sénégalais yëpp génn ndax démocratie la sànq maa ngi taxaw yor sama xeer nit naan ma responsable nga doo yor xeer ma ne ko Moustapha Niass bi muy yor xeer assemblée nationale 23 juin démocratie taxoon tey su ma tax yor xeer démocratie moo tax yoruma xeer ci suma intérêt bopp yoruma xeer wala intérêt boo xam te ne suñu intérêt coalition la ne sénégalais génn jël seen responsabilité falaa yem bi nga xam ba ñu am seen candidat mu di ki nga xam moo di Bassirou Diomaye Faye dégg nga li mu jot a yëkkat ci ay kaddu mu jëm ci euh, projet de loi bi nga xam ne tamit ñoom ñu ngi koy bañal pour ñu waal koy voté fi nga xam ne moo di suba ci altine ji boo xoolee liñ ko baare ambiance